ko mayee baax na ndox it hmm. ay administration pénitentiaire du ñoom ñoo koy jox mu dox mu naan ay jege ñaaleem ñooy jënd ay butéelu kereen indil ko ko Ousmane nag gannaaw bi mu duggee ci kaso bi mu yëkkati woon ay kàddu yu daw yaram wu askanu Sénégal euh, jaajëfal leen remercier leen sant yaayam ñaanal baayam bu baax sant ay soxnam yi nga xam ne bi mbir bi taxawoo ba léegi Ousmane Sonko nee na maanaam mi ngi leen di sant sant boo xam ne am na tàmbali mais amul jeexital ndax euh, jamono doy na waar doy waar goo xam ne góor bu la yenn nattu yi dalee ci àdduna souvent say jëkkër say jabar mën na am neneen nu ñu doxale weer la si say kanamu noon te ay soxnam maanaam sant na leen si maanaam ni ñu ko soutenir fi mu gënee metti Ousmane nee na foofu la ñaari soxnam takkee euh, seen ndigg taxawu ko jàppale ko boobu moom daanaka bu mësaan nekk ak ñoom ci biir kër gi du sentir ne mi ngi si ay jafe loolu soo ko moom moo ko wax. Hmm. santaat na bu baax yàlla suñu borom mi nga xam ne moom moo ko bind bind noon yi ko teg mbir bii nii sant Rasulullah ñaan na fa yàlla may ko doole jëm mayoon Moussa. ñaan na yàlla may ko doole jëm mayoon insa mu nekk kàddu yoo xam ne sante na ko boromam ci biir kaso bi biir kaso bi mi ngi fay jàng mi ngi fay jàng arfuraan mi ngi fay sabaabal boromam te dénkaat na boppam boromam dénk képp koo xam ne nii bëgg nga ko di sonn ngir moom dénk na la yàlla suñu borom te moom nee na gëm na ne lii nii ndam lu rëy la ciy génnee. Hmm. ndam lu rëy la ci Ousmane Sonko amul lenn lu wàññeeku ci moom ci ngëm-ngëmam ci yore Sénégal ak jiite Sénégal ëllëg maanaam loolu ba nekkinam biir kasu sax dafa wane dafa wane loolu noonu loolu mooy tàmbali bi. mooy tàmbali bi. tey la am ñetti fan mooy ci premier bis bi mu tegee tànkam. Euh, biir biir biir biir biir biir biir prison nee na ay ñooñam nañu ko gën a gëm nañu ko wóolu te jàpp kàddoom te xam ne moom il préfère mourir ci ci dignitéem ci dignitéem que ñu koy noot di ko def jàmm maanaam mu il préfère mourir moom ci dignitéem que ñu koy def jàmm loolu dafay fekk li boroom xam-xam bi waxoon ne l'homme noir a choisi d'être esclave plutôt que de mourir en homme libre loolu ci tàmbali bi la bi mu nuyoo moo tax boo xoolee patriotes yi sax damay gis léegi ñuy bind di publier ñu naan ñaari rakku Ousmane Sonko sa Sëbi Xotaan xam nga fa julli ñaari rakk léegi tudde nañ ko ñaari rakku Ousmane Sonko si Sëbi Xotaan journée tey bi nag tàngaay bi sonal na ko tey parce que waaw sonal na ko lool lool lool lool loolu sax parce que moom day def euh, grève de la fin te grève de la faim dafa nekk droit boo xam ne yoon moom moo ko may détenu bu caabi féete ginnaaw waxuñu la nga xaar waxuñu la nga saaga garde waxuñu la nga daw kaso mais am nga droit bu la dara méttee nga def grève de la faim bi jubluwoo si euh, dee mais li nga si jublu mooy autorités yi dégg la droit de l'homme dégg la nit ñi dégg la ñu xam ne yow sonn nga soxli nga ndimbal message la grève de la faim message la hmm. boo xam ne détenu bi bu koy def biir prison mooy message bu mu jëmale ci justice ci ñi ko teg lool ak ci droit de l'homme yi xëy na we nañu ay droit am xëy na teg nañu ko injustice xëy na teg nañu ko lu metti léegi moom bu defee benn grève de la faim dafay nekk façon pour ñu génn. si loolu la oui peut boobu nga wax noonu ci grève nga li nga jukki nga ni tàngoor bi sonal na ko au point tàngoor bi sonal na ko ba xam nga Ousmane Seydina Ousmane dafa amee asma ba asma bi si diir bu gàtt asma bi xaw na ko sonal diir bu gàtt te loolu bi mu amee it ñi nga xam ne ñooy waa kaso bi ak docteur yeeg yooyu ñoom booy grève de la faim dañuy ñëw ñu taxaw ñu waxtaan ak yow ne la bàyyil grève de la fin bi grève de la fin baaxul mais kenn amul sañ-sañu forcé la nga lekk loolu benn la ñaar bu Ousmane Sonko def grève de la faim docteur bi dina ñëw bu ñëwee mu nekk ndax ma xoolal la sa yaram ndax ma jox la ay garab mais loolu mënoo ko def sans consentement nit ki maanaam Ousmane Sonko xel xalaatul docteuru kaso bi jox ko benn paracétamol wala pikiir ko wala defal ko perfusion te moom àndu si muy bépp malade loolu loi moom moo teg loolu noonu mais ñoom dinañ ñëw massa wu ko bind ci karne bi ne demoon nañ xool ko jox nañ ko garab mais nanguwul naan newoon nañ ko kaay ñu perfuser la bëggul ñu perfuser bëggoon nañ ko jox ndox mu ne naanul lekkam mi ngi nii lekku kaso bi mi ngi nii jox nañ ko ko nee na moom lekkul ñu bind ko ci kay foofu la ñuy yem. te loolu yëpp am na. waaw li ngay wax ni yëpp jot naa am évidemment am na. évidement loolu loolu am na ci bu loolu dans toutes les prisons bépp détenu bu mu mën nekk kaso ngay grève de la faim. maanaam mën nañ la isoler ñu ber la. Hmm. wala ñu bàyyi la sa nekk mais docteur bi saa bu yeewoo dina yebal ndaw mu ñëw xool la boo bëggee ñu piqûre la boo bëggee ñu perfusionné la. kenn du la forcé nga jox lekk loolu lépp bi Ousmane nga duggee ci kaso bi loolu lépp constaté nañ loolu bind nañ loolu ci carnet moo tax ma wax ne. Hmm. tàngoor bi ah, tàngoor bi. nga ne ak asma bi asma asma bi asma bi bi mu ko daanalee. xaw na ko sonal ba fàtt na si sax asma bi. fàtt waaw parce que tàngoor tàngoor boobu. dafa tàngoor bi dafa mette méttee métti biir kaso ba man yërëm naa man Ibrahima Sall képp ku caabi féete ginnaaw yërëm naa la yërëm say mbokk ci jamono yërëm say wajur ndax ñi ñu jiite suñu nguur ñàkk yërmande bi nga xam ne dañ ko am ci képp koo xam ne caabi daf la féete ginnaaw te ñuy bindal président ay rapport di ko ko jox wax ko li ne ci kaso yi bindal ko ministre bindal ko keneen ak keneen mais malgré rapport yooyu jéemuñu def benn jéego luy wàññi coono ak naxar te ñooñu am bakken moo tax benn ni waxoon na ministre Sidiki Kaba nekk maanaam jamonoy njaam yi ñuy jàpp suñuy maam nee na bu ko fi fekkoon day dem tubaab yi jàpp ko njaam ñu laaj ko lu tax mu ne par tubaab bu la jàppee dina la toppatoo dina la pikir dina la jox nga lekk mais nee na ay prison rëbës moo gën a metti li amoon jamonoy esclave wax jooju dégg-dégg la laaj. Mm. évidemment Ousmane ko tàngaay bi sonn na ko lool lool ci bëccëgu tey bi par bëccëgu tey bi. dafa tàngoon mais alhamdulilahi rabbil alamin yàlla euh, delloowaat na ko boppam mi ngi si jàmm mi ngi jàng arxuraan mi ngi sant boromam mi ngi santaat waa Sénégal mi ngi wax ay ñoñam nañu gën a téye hmm. nañu gën a gëm te xam ne yaakaar bi nga xam ne ñoom moom la ñu am ci moom ba yëkki seen alal di xeex ngir moom di sonn ngir moom di dee ngir man mënuma la wax mais ban ban ban ban kàttan lay am sëñ bi bu muy continuer di def activités yi ngay wax ni di jàng yooyu ci koo xam te ni bi mu tàmbalee grève de la faim ba léegi nanguwul lekk nanguwul naan bu ñu sukkandikoo ci seen kàddu et xam nga xam nga xam nga së loolu bu yàggee moom mbaa du indi waaw xam nga xam nga man sama juróom-ñaari xel hmm. samay juróom-ñaari xel xalaatul jéemuma ko sax muy tëkkarle Serigne Touba ak Ousmane Sonko dama bëgg nit ñi déglu li may wax ci xel bu baax ñu xam ne kaso bi ñu dugal usmaan Sonko maanaam ndoxum naan la maanaam Ousmane Sonko def na ko addi suurulaay te xamale na ko yeggale naa ko ay soppeem pour ñu dégg ko moom kaso bi. Hmm. def na ko addi Rasulullah maanaam feebar ak asma loolu yëfu nit la ndax Serigne Touba daan na wopp di baxal ay garab di naan Serigne Touba fii lañ ko fekk réewam ñëpp toog seetaan ñëpp seetaan ko mais Sénégal yëpp bu ñu génnoon ba ñuy jàpp Serigne Touba. intellectu intellectuel yi wax ak tubaab yi nit ñi ñaxtu mais tubaab yi duñ yóbbu sëriñ tubaab mais maanaam seetaan yàgg na ci réew mi ak injustice ñu seetaan sëriñ bu mag bi bañ jàpp ko yóbbu ko Gabon sept ans sept mois sept jours te sëriñ Touba suñu borom may na ko baatim boo xam ne nit bu faatoo waxuma la bu la xoolee bu la raayee nga dekki ki mën loolu kon bu ko tubaab yi jàppee yóbbu kon kañ moom la neex kon loolu s loolu jéem a ko tëkkaarle ak mbiru Ousmane Sonko mais àdduna booy wax. ak nit ñu am xel di xalaat da nga leen di jox misaal maanaam li ma bëgg wax foofu. Hmm. mooy maanaam jàpp bi ñu jàpp Ousmane Sonko maanaam dafa tegu ci doole xam nga tubaab yi bi ñuy jàpp Serigne Touba ci doole la mais Serigne Touba suñu borom mayoon na doole Ousmane Sonko it jàpp bi dafa tegu ci doole mais suñu borom may na ko doole doole ji ma ko may mooy may na doomu aadama yi soo ko nekk seen xol man benn femme. bu nekk Paris mais li ngay wax ça ne sëñ bi li mooy. mooy mooy mooy souci bi nit ñi di am ci koo xamante ni daanaka léegi mu mat juróomi fan ci xiifal boobu noonu mun a ni def activité yi nga ak tàngoor bi nga wax ne tey moo sonal ci wàllu woowu laa ne loolu boo continuer à la longue xam nga ndax mënu ko jural xam nga xam nga xam nga Ousmane Sonko déjà loolu yéen a koy yéen koy mettitlu rek yéen a koy déet pas mettitlu mais nit ñi nit ñi ah. ko bëgg ay soppeem ñoom man li ma leen di wax assurance laa koy waxee ak certitude maanaam ñoom ñoo koy mettitlu ci forme bi nii ñoo koy mettitlu hmm. mais maanaam Ousmane Sonko dund dund na ci réew mi ñaari at coono goo xam ne amul kenn ku jug ne da ngay politique nga bëgg réew mi ñu yàq sa der tuumal la ko muy terrorisme tuumal la force occulte tuumal la force spéciale euh, giiñ la viol giiñ la diffamation giiñ la giiñ la barricade sa kër cinquante cinq jours demoo dikkoo Euh, euh, pays la détention arbitraire ba loolu laal ñi dëkk si te kër góor gi yëpp loolu si nit ku yor bakken am ndey am bàyyi di nelaw di xiif di sonn ñu teg la loolu ngay dund ba léegi taxaw kon dama yaakaar ne man si sama analyse. Hmm. njàmbaar googu mu wan askanu Sénégal ba ñu jox ko bopp. mun naa muñ xiif njàmbaar googu mun naa muñ mar. mais Ousmane ko ba mu demee kaso ba dafa julli ñaar dafa julli sant borom. ah te mu ngi te te biñ dugal mu ngi ci grève de la faim de. oui mais sànq yi ko doon ah, proposé. mën nañ la perfuser mën nañ la nangam ñoom bu ñu demee ba wax loolu mooy xam ne ni nit rek la man yéen xam ngeen ma bu baax man samay kàddu kenn du ko weddi maanaam ru jomb naa man toog di fen di wax lu dul dëgg te yéen xam ngeen loolu man munu ma man je ne mets pas en doute ci mais damay wax faculté nit bi mu doon nit bi mu mën naa waaw waaw mën naa dem ba yëf yi sonal ko ndax mënul yegg mais prison prison docteur yi koy proposé xam nga grève de la nañ ko piqûre nañ ko defal li nañ ko defal nangam xeet xam nañ ni xam nga yàlla li def nii am na app am na fu mu mën a. dama lay dama lay expliquer tey jii kéemaanu yàlla bu doy waar laa lay expliquer. mooy kéemaanu yàlla man damay yar éleveur laa yarkatu ginaar laa. dama amoon benn ginaar bu feebaroon amee variole mooy picc yi génn si kanamam ba nga xam ne ginaar gi mi ngi wéexu bay waaj a dee ba nga xam ne daal ginaar gi boo naanee ndox balaa muy jàll nga ne ginaar gi dee na ma yëkkati ginaar gi ndànk suñu kër ak stade bi ñoo dendee ma tëmbal ginaar gi si stade xoole état bi mu ne ma tëmbal ko. bàyyi fa ginaar gi yàlla suñu borom mi dara teewul une semaine une semaine waxuma la benn fa une semaine ma ànd ak samay jarbaat ci estade bi comme damay élever ñu may daggal ay ñax ma ñëw ba boor boobu ma gis ginaar gi mel ni lu jugaat toog keroog dama taxaw di jooy dama dama dama teg sama jësi suuf ma xam ni ku ne yàlla amul rek boobu daf fekk nga manqué maanaam bi ma fekkee ginaar gi ci estade non seulement ay muus fa Euh, ay ay njàppaanang fa mais ginaar gi maa ngi ko fekk mu ngi tëdd amaat forme boo xam ne keroog laa yéemu ci yàlla suñu borom yàlla ku koy fontoo wala kuy am dut ci li mu xarañtee yàlla dina ko wane ci. loo bëgg wax ni xiifal bii ci Ousmane Sonko même buñ ko buñ ko buñ buñ ko bu naanu bu lekkul mun naa ko ne nii. sëñ bi man bokk naa. te du ko def dara man ak am Amdi Moustapha Bari ay détenus yu bari ay amaat Dieye ma mën leen cité bi bokk nañ ci ñi nga xam ne. xamuloo gis dafa am ñu koy commencé si kaso ñi hmm. man bi ma bi ñu ma jàppee maa ñëw ma wax détenu yi ne leen ñaata at ngeen def fii ñi naan ma ñetti ma ne leen yéen lii ngeen nangu nii nguur gi teg leen ko mais yéen la neex def leen grève de la faim dañ ne ma grand yow da nga dof mais détenu yi bañ ko ñamee 2015 hmm. kaso yëpp chaque ñaari fan nga dégg xale yi ñu grève de la faim te seeni mbir mi ngi yëngatu te foofu ba may nekk kaso ñun doon nañ grève de la faim une semaine Ousmane Sonko xam nga defagul une semaine. waaye doon nañ def grève de la faim une semaine ba am na benn xale bu ñuy wax Ablaye Sarr grève bi daf ko jàpp ba ay yax la dese laa la wax mu ne buñ ko naree jam perfusion il préfère mourir te tëdd na kasoom génn na soudeur la mi ngi liggéey yàlla suñu borom moo téye nafsu te gis nga ay xiif ay mar. Hmm. mais lan moo tax yàlla indi koor mais am na nit ñoo xam ne mën nañ naan benn kaasu ndox toog ñetti fan du ñu lekk. sag jaamu yàlla Ousmane Sonko. oui mais <laughs> Ousmane euh, Sonko defal naa ko mais xam nga xam nga xam nga ku gëmul yàlla xaaral sëñ bi Ousmane Sonko grève de grève maanaam triché wul ci li muy def moom. Hmm. moom moom moom triché wul ci li mu woote ak li mu nekk moom triché wu ci. maanaam gis nga maanaam amul dara lu koy génne ci lii defu ko pour ñu génne ko ci wala waaw c'est-à-dire am na ngëm yàlla boo xam ne bu nekkee xam nga alxuraan dafa ne yonente bi sallallahu alayhi moo wax ay waxam mu ne maanaam jullit dëgg boo fekkee dëgg nga gëmma sa bët yow complice nga loolooy situation bi taxaw Ousmane Sonko moom loo ko bañ bañ bañ ci réew ñaar di nga ko ko nangul te ay noonam nangul nañ ko ko ba tëdd suuf mooy benn di nga nangu ne Ousmane Sonko ku jub la ndax bu jubul woon jàpp nañ ko ci ak càcc te kenn moo tax bañ ko géejee sàcc portable nit ñi dañ tëdd seen kër di reetaan par ku liggéey fi ëpp xaalis Sénégal fukki at ak juróom mësu am Ousmane Sonko am na fi problème ordonnance biir këram 60 mille mënu ko jënd ay nit ñu baax ñoo dem jënd ko jox ko ko Ousmane Sonko biñ ko barricadé këram nii cinquante cinq jours yi est-ce xam nga ne njabootam toog nañ vingt quatre heures daanaka ñu ndox. Hmm? robinet dafa tëj. est-ce que loolu askan bi xam nañ ko toog nañ foo xam ne diwliñ jeex ne est-ce que loolu askan man li ma du lu ma inventé du loo xam ne dama par dañu barricadé këram dara duggul dara génnul cinquante cinq jours te yàlla bi ngi téye seen bakkan bu Ousmane Sonko dem juma. mais danga naan kii bari. oui yàlla moom la ñu bëgg a wax nii nga ngëmam mën naa dem ba du yëg lekk du yëg naan te du ko sonal. lu mu bëgg a wax maanaam Ousmane Sonko dama ne ndaysaan moom nee na ndeysaan euh, ay ay ñi ko bëgg ay soxnam ay mbokki boppam ñoo ko jaaxal fi mu ne xam nga nit ñi sens inverse la man démb tey bu la neexee ma bës sama whatsapp tegal la benn audio ndaw suy jooy boo mu ko autorisé jooy yu metti te plus de cent cinquante audio ak ay appels yoo xam ne dem na plus de 700 appels dem ba 4 heures du matin ba 10 heures si suba 4 heures laa la wax bi ma paree sama live damay wuyu téléphone les gens di ma woo de partout loolu dama ci def une évaluation. jël paramètres yëpp en compte. ma xam ne mu neex. ax mu naxare Ousmane Sonko nit ñi bëgg nañu ko te bëgg boobu dafa sincère. ban politicien nga ma a gis dans ce pays ngay politique nit ñi yëkki seen alal yëkki seen ñax di la ko jox di sonn si yow nga jaral leen lu nekk ci àdduna loolu Abdoulaye Wade jaar na fi amu ko Senghor jaar na fi amu ko kon tey jii bu nguur gi jëlee Ousmane Sonko yóbbu ko prison mooy man pour man. Hmm. ñi ngi sonal seen bopp mais loolu terewul. deux mille vingt quatre man ci li ma gëm. Hmm. ak paramètres yëpp bi ma defee samay analyse def sondage. Hmm. nga xam ne tey même booy live quand tu parles de Ousmane Sonko les gens te regardent quand tu parles de Macky Sall personne te regarde loolu dem na ba presse bi ñëpp xam ku bëgg a ku bëgg a buzz tu vas parler de Ousmane Sonko loolu la yàlla def loolu paramètre la mën nga ko mën nga ko nat et les gens qui vont voter mais du ñu ay jinne du ñu ay dëmm ay garab lañ te au moment opportun askanu Sénégal Sidi Lamine Niass nee woon na ma askanu Sénégal. ñoo dax fayul nit Sidi Lamine yàlla na ko yàlla yi yërëm moo ma woon biroom mu ne ma Ibrahima mu ne ma ah mu ne ma muñal ci stigmatisation bi ñu lay def mu ne ma askanu Sénégal ñoo dax fayu ci lépp lu yàlla bind te askan bi boo yow boo xoolee climat réew mi rek. nga xam ne hmm. nit ñi déjà seen xool na xam nga kookali ci kookali weesuwul acte bu ñaaw nga jël siège yu jàmbur tekki fotam ay autorité ci gouvernement bi taal seen oto. romb VDN bi taxaw di xool ñu koy dind ñu ciy kontaan ça si de la pure rek tey état de droit dañu ko menacer ci réew mi démocratie dañu ko menacer ñun ñii di xeex ak ak yelleefu doomu aadama nekkatuñu en sécurité dans ce pays